bii xarit bu tedd gi moom soxna Aida Saliou Thioune waaye gars yi loxo yi ah xarit bu tedd gi mooy si ah ak may sa lu ñu gëna waagaat ñoo ma ko jëgal ku tedd gi nee na Amir Sula Dieye ak jëwriñ waagaan pour di falan ñoo ko jëndal muy xarum tabaski yàlla ngeen ko gën a mën. yàlla ngeen ko gën a mën. ah daañu buuru gerte gaa ngi noonu nañu ko may loxo. soxna Awa Gambi ayca bisimilah mu raaw. soxna Awa Gambi. delloo pej. waaw góor a waay. ayca. kooku ànd ak. Université Abdoulaye Ndiaye. Toulouse. Toulouse. aywa. jëwriñ Sabali ak Pape Modou Niang. jëwriñ Ibrahima Sabali ak Pape Modou Niang. góor Aïcha. nommé nañu universellement Omar Tour ak Khady Jongo. bismillah. universel Tidiane. Abidjan. Tidiane Diaw Tidiane Diaw góor bi université Samoura Paris Paris góor aywa next Nakaw université Sémou Sarr waare e sonnani nga wut ko ñu ko liggéey loola waaye ñu am taw féex tey am sëriñ bu mat sëriñ bi ñun la ñu am barke sëriñ Béthio li ñuy wax naan sëriñ bi jógu fi ku fiy jóg ay mbiram dina mel nii damay dégg tànk kanam ak ginnaaw kooku amul ginnaaw ndax wutewul dara daa koy wax sang bi yu ñu naan fu ngeen mën a ne sama kër jaa ngi ne teg ci yéen. cee si béy mu teg la toog barki sëriñ béy toog te mu ne dama ko mujjee mu réer nee naa leen du ko def kenn sëriñ béy toog da yàgg xaal wéet lool tey daa xam ñu naan ku ñeme dañ laa dee waa ki xam na ki xam na ki yàlla xamal. mais kii yàlla ko jàngal moom si benn si benn jaay yi charia charia moo ko gën a xam ñëpp daan koy wax sang bi ñun ñeme nañoo dugal biir quartier moom seen benn daa dina ko wax ak mën a yar ak mën a def jigéen jigéen ju vertueuse dama leen di wax ni damay ñëw ci seen benn mënumaa woddu moo ma jàngal woddu ndax tubaab la ñu rek ñu dox fi xamul dara amoon complexe waaye ba ñu ànd ak seen benn la complexe jeex ñoom ñu décomplexé comme seen yoonam bi cant gii nga xam ni xeetu jaamu yàlla yëpp ak cant gi feeti ko waaye dama ne du yàgg lu lu dëgg du yàgg te ñu lu yàq yàgg yàlla da ko ko lu yàq yàgg lu yàgg yàq waaw. parce que seen i feete boobu ak léegi. boobaak léegi sëriñ Saal dana ko doo yàqu doo yàqule kenn mënu laa yàq mooy moo mën a sant dama daan dégg waa rajo bi dama oh ay mucc suñ koy jëlee. moo yàlla dox ba ci ma suuf waaye sama ëllëg jaaxle loolu bu jaax bu lay waa dëgg la tiit am na ku mu sa fekkee muy sant sëñ Béthio ne ko sëñ Béthio woo la oh laa xol bu féex xeet laa am ndax nee na li mu daan dégg te newoon ci saa si newoon ci lenn li mu ne néew kay daanaka comme du dexe na ci ne rek. nite mu def ñuy ay nit yu nite ndax nit dana doon nit te du nite ñamanu nee naa am yàlla duma ne xam yàlla wala di gëstu wala waaw ñi daan wax naan aset ñi dëddu àdduna di ngir saa yi si sori ko dem fu roqee ngir wér nee nañu ak yàlla suñu boo waxee rek jaamu yàlla méttiwul na. parce que si li ngay jox waaye daan xool def nañ ni ah noo gën a rafetloo yaa gën a ñeme ña yaa gën a jege yàlla suñu borom. sëñ Saliou yeesal. indi lu fi mës a xew yërmande bu mës a wàcc. ndax xool jëm nguur gi nationale bu kenn mooy dégg ngeen wax yi ni nga am seen moom. Serigne Touba da laa nangulee ni mu mës a nangulee kenn waaye si fexe bu jaayee de. Serigne Touba da laa nangul nu mu mës a nangulee kenn Serigne Saliou Mbacké mooy ki la ko wax. bu nangu rek noppaloo. Saliou Mbacké li mu def ñun jaar ñu di sunu dënn yi di jub kan la sëñ Béthio sang bi sëñ Saliou yore daara di fa tarbiya ne sa daara yu soow yi ak samay daara lenn lañ waa déggal loolu ñu ñun dañoo daj ñun ñoo am lu wér ñun làmbatuñu lañ koy toog ñun ñoo war a gore nee naa moo tax yoon bi sëñ bi dafa ne yoon bi bëgg ak parce que yoon bi def rek la yoon bi def rek la ku ñu defal nag ñu ñu defaloon kenn waaye war ngaa def lu kenn deful waaye bokk taalibe ku ñu defal lu ñu defalul kenn war ngaa def lu kenn deful ñun lañu def yaa ngi ko yóbbu ndax di ferit di xottiw soos booba ñun ña ngay nelaw booba ñu ngi suñu climatiseur yi soxnaa yi nga dem ca maam jënd dugal boobu yaa ngi jàngale de takk sa digg di jël wàcc sa néegu climatisé yi boobu ku jàppoon waaye dama ne su mu ne si waaye xool leen kër gi di jaay jën boobu yaa ngi jàngal mbooloo mi am jom na la nga liggéey barki sëriñ Béthio yaa ngi jàngal nit ñi bañ a complexe am jom na nga liggéey tey def te loo ci a am takk nga ko jox seen sëñ Béthio daal ñàkk a wuti social boutique yaa ngi koy wax dañoo daan ubbi boutique sama saa ngi lekk wala ba mu daanu yërmande ji moo tax du ko faral yi téere jariñ jàng di yoon yoon da ngaa doon ku sëñ bi ci stratégie ci organisation ndax maa teewee ma taw feex ko yàlla lu ma waa ñu ànde ko ma di te yàlla nañ ko ànde faw ngir man defoon naa ni ah bongo bi may ñëw xaw ma sax di ab taalu bi waaye maa ngi doon jéem a góorgóorlu dafay nag bi may see tekki naa boo ñëwee soxna yi si bi xam nañu lay def rek góor day góor ah ah barke Sëriñ Béthio koo koy góor li may def nga ñu takk leen tekki leen seen oor yi di jaay yenn saa yu xoqati barke Sëriñ Béthio sañu ñu naan waaw sañ-sañ bi waaw sant rek sang bi ñu ngi di la tuubal ci lu ñu xam ak lu ñu xamul yëngu gi rek bëggoon a wane suñu mbéy ak suñu ci mbir yu am tey seen mbéy moo fi ñëw mbéy mi bu ñu gënee seen mbéy la mais dama ne mujj du topp mujj gaa yi nañu waxante dëgg déedéet seen mbéy amul dendandoo loolu ko réaliser bi ci ci ci ci lii woowu fekk man maa ngi dawal ba gaare lii liberté mu taxaw daal ne ma nii fàtte naa dëgg frein ba oto baa ngay kii pansement ne ma yow sa yow kii bi ma di daw mu ngi ci ñenn ñi ñu jege xam ni ba ci jëwriñ Mariam Kane bu sang bi soññee def ma yow mais pression bi may xaw a ma ne ma buñ ma tegee pression rek ma teg leen ko ma nii laa daan mais lii du ay lu xus lu kaay. barke seen béykat xam nañu la lool nañu. yeggul sax fenn fi xam-xam yi yeggul fenn fi waaye ñoom ñoo dimbali. ñu daal nañu ko dëggal nañu góorgóorlu. te suma ngor waxu rek sang bi di waaw xiilaat xaala waaye sunu ngor ak li ñu seen béykat dafa. ñun nee naa ba saa su ne bu ñu newoon picc bi di ko toppatoo wala la doon sëb sëb picc bi doon sëb sëb. waxat ma laal na gëtu sëñ bi te ñu dañuy xool li ñu ñu yërële sa xéwal yu bare yi boo sëqee jox ñu ci valise yi yére yi man bu ñu naan maa ngi doon comprendre nga toj ma desaat na maa ngi doon comprendre <laughs> yenn saa lu nekk contexte am nga